kawteef gu rëy la ñu doon àtte démb ca tribunal bu Thiès mbir mi yéeme mii te doy waar moo ngi amoon ca atum 2017 ci dëkk bu ñu naan Kër Mandiaye bu nu sukkandikoo ci journal Libération mi joxe xibaar bi waa jii di Ngor Sène dañ ko doon tuumaal ni dafa def ay ñaawteef ci kaw soxnaam ak doomam loolu moo taxoon sax ñu jugé woon ko ci tentative d'assassinat avec acte de torture et de barbarie maanaam ku bëggoon a faagaagal nit ba noppi teg ci kawam ay jëf yu ñaaw yéenekaay bi nee na bés bi mbir mi di xew ngóor seen ci boppam dafa jàppoon jabaram xoj ko ba xamatul fu mu nekk yemu ca mu jël benn tuyau dugal ko ci kanamam ngeen baal ma ci wax ji libération nee na it bari woon na ay dagg-dagg ak ay gaañu-gaañu yoo xam nemmeeku woon nañ ko ci yaramu soxnaam si ak doom ji gannaaw bi ko benn dëkkandoom siiwalee ci jëf jii mu def tamu jàpp ni jëf ju rëy la te ñaaw démb ci kanamu juge yi ca tribunal bu Thiès ngóor seen dàq na tuuma yooyu yépp ndax nee na dara amu ci wuuteeg park bi gis ni lépp am na ndax gis nañ ko te moo ko def moo def wala deful délibéré bi nu mel le 27 mai lay doon dañu leen ko toppal ngir xam fan la wànnante di mujjee ki gëtam ci mbiri ngóor seen soxnaam si ak doomam